vie des médias bravo. parce c'est devenu la chaîne leader. Hmm? on est déjà la chaîne leader. c'est devenu, la chaîne leader plus. macha allah plus voilà macha allah. la du ñu femme objet. te te président Bougane Gueye dañ dafa gëm jigéen ñi daal di leen jox lenge ne leen liggéey leen ndax ma leen gëm. wallaay euh, wallaay c'est important nuyu naa la. macha allah ma di la fay Luisa Diandi soxna vous êtes toutes euh, bien habillées. oui normal on est pas des euh, femmes femme objet non loolu moom wax dëgg yàlla cette chanson là quand je la vois dama ci je me rappelle bi muy door a génn dama ci amoon benn fierté bu mag parce que thème bi. musique bi vraiment. bon moo tax Kumba. nañ ko ñaanal yàlla. Mm-hmm. mu si waat si jàmm ak salaam. Ah, ñoo on a une bonne pensée à son endroit na yàlla saafaraal ko ba mu reprendre way yi incha allah. Ah, mm-hmm. c' juste àdduna da ngay dox ba mu yàgg nga taxaw. yàlla daf lay ce qu'on appelle ressage. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. lool la xasma. naam yàlla na fi yàlla saxal jàmm. allahumma amin. yàlla nañ ma baal yàggaay bi waaye yàlla na fi yàlla saxal jàmm. amiin na fi yàlla saxal jàmm. yàlla na fi yàlla saxal jàmm. yàlla na fi yàlla saxal jàmm yàlla na fi yàlla saxal jàmm. amiin na Sénégal yëpp ne si jàmm. allahumma amiin lu ñu fii toog di wax. Mm. su jàmm amul du sotti. dëgg la jàmm nag ku ñu ko nar fii ci Sénégal. Mm. duñ la ñaanal safaan de. waaye yàlla na yàlla soppi sa xel. ba nga dellu gannaaw. mi ngi noonu nag euh, kon jigéen yi yéen lay sargal jagleel émission bi tey dañuy fas yéene nag tàmbale daal di dugg ñu tàmbale ko rek ak suñu éphéméride Papa Assane mm-hmm. ñu daal di fàttali tuuti ndax daf ciy baax nit boo xa boo bëggee euh, xam fi nga jëm da ngay xam ki nga doon. Mm-hmm. Euh, te histoire dafa bokk ci li nga xamante ni moom moo di dëgër laayu. doomu mm-hmm. aadama rawatina citoyen wala patriote. kon nag nous sommes aujourd'hui le 1 mars nous allons retourner au 1er cinq militaires sénégalais du contingent de l'Union africaine au Darfour à la frontière soudano-tchadienne boobu ci jamono Tchad ak euh, kii ñoo ngi nekkoon ci euh, litige boobu noonu ñuy wax mutinerie guerre ñun yàgg nañ taxawal jàmm ah, ba ñàkk ci suñuy bakkan waaye euh, nañ ko tàmbale fii ndaxte jamono ji dafa mel ni fii lañ ko gën a yittelee. Mhm. Sénégal yàgg nañu yàgg nañ ci jaloore yooyu ah. mhm. moo xam ci Sénégal moo xam biti Euh, lu ñu yàgg topp la la haute diplomatie sénégalaise toujours impliquée via de conventions si ça et là convention yoo xam ni entre Nations Unies Union africaine ex OUA yëpp yàgg nañ ci si bokk euh, après nag bu dara xewee faw bu ñu nee nañu woote comme ni mu amee fële ci Centrafrique ak MINUSMA et cetera ñu Sénégal dañuy participer donc lu yàgg am la malheureusement léglé accident am on se rappellera toujours ndeysaan euh, yaa ngi wax Tchad Soudan mais on a toujours en Euh, sunu xarit bële cosaanoo ci Pikine capitaine Mbaye Diagne. Mhm. nga xam ni le 31 mai euh, deux mille 31 euh, mai 1994. bi Brésil di final ak Italie. Mhm. Roberto Baggio di aj penalty ba Brésil di gagné. jamono boobu capitaine Mbaye Diagne mu ngi xeex ca Rwanda. Mhm. Ah, di dimbali ay nit. plus de mille Rwandais sauvés. donc loolu lu yàgg la si loo xam ni voilà mi ngi noonu premier ma euh, premier mars ba tey 2019 bi pas décès à Paris à l'âge de 82 ans de ki nga xamante ni moom moo di Maïmouna Kane née Ndongo ancienne magistrate et première femme nommée ministre en avril 1983 l'honneur aux dames paix à son âme yàlla na ko yàlla euh, atte ci yërmandeem. Asma. naam yàlla na yàlla may yu may mun a kan suñu yaay bi on a on a ñuy doon doon xale ñu ngi kaa fàttaliku dañu am mooy autorité yooyu nga xam ne dañu amoon l'allure altière nga xam ni dañuy nga xam ne da nga leen di gis rek au-delà de tout soupçon ou toute pensée négative le charisme faisant da ngay am sa xanaa xanaa xamoon ni xasma xulli leen est-ce que xam ngeen ni est-ce que xam ngeen ni est-ce que xam ngeen ni autorité bu bu am personnalité hmm. day dalal xelu dëkk c'est boo xam ne ba gisee mu nay. Mm-hmm. am charisme boo boo gisee mu neex la am dayoo am dayoo yow kañ nga dégg. sa respire la confiance. <laughs> voilà da ngay da ngay da ngay daf lay inspirer confiance boo xam ne da ngay am da naan oh dëkk bi pourtant ça va. Mm-hmm. day dundal xol lépp nice mais nag. loolu yi ñaan yàlla mu dellu si parce que xaw na fi manqué tuuti mais une autorité comme ça comme Maïmouna Kane dans le temps ñëpp ko bëggoon. c'est extraordinaire. les gens n'étaient pas d'accord avec le parti socialiste autant. Mm-hmm. à un moment donné mais tout le monde l'admirait yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi dafa am ñoo xam ne dañoo mën dañoo juddu ngir mbir mi. Mhm. te mën a rafetal. du ñu même bu ñu àndul ak yow. te àndul sa dégg sa dégg dafa ma commencé gën a neex léegi. <laughs> daf may. ah la nag. nekk ci wetam n'est-ce pas. macha ah? waaw waaw daf may classé. ba pare ba pare ji ñëw di di kii naan. oui tu as une mais déet idée mais dañ ko ko ah, de. waaye nit mu jàng rek lay tari tari. Euh, jàng bi mokk na macha allah. macha allah mais au delà de jàng jàng maître lu mu jàngal jàngal élève. dafay fekk élève ba am prédisposition. ah loolu am élève ba yor dara. Mm. maître ba dina yuux ba suba. lay <laughs> dara du dugg. élève bi day yore. Ah. maître bi yore ñu boole. waaw et lii la. en tout cas daal loolu manqué. macha allah tu as les de beaucoup de gens. naa la wax après merci beaucoup merci. ñenn ñi bëgg nañu ci leen. seede oh les les les bonnes images. aujourd'hui Papa San koy wax ne ay suñu ay défaite bu ñu ko fàttali. mais lii du défaite ndam la kon yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana mag yi fi nekk nag di def euh, lu baax. ah euh, Papa mhm. balaa ñuy dem ni ñuy sóor ni euh, tôt ou tard dina jeex ñu am ay ndaw yoo xamante ni dañ leen di coacher. ci mbir mi ndax ñu mën a euh, xam. ni ñu koy wëyalee. Mhm. ndaxte def lu baax baax na. Mhm. am koo tàggat tamit gën na. ba tax ne li nga fi liggéey dafay wëy on manque de raffinement et de d'élégance en ce moment et on le voit dans tout hein même même même dans le simple bonjour yi ñuy am ci mbedd yi. te c'est dafa doy waar donc lii du ñun lu dul ñun nag nañu am fulla ak fayda yi suñu maam yi amoon euh, daal di jël lañu moom ngànk ko ba teg siisu mhm. siisu nag bañ ko ku ko foqati ci du noonu gaa ay ca asma <laughs> ñu dugg ah, actualité ñu dugg noonu duggee noonu actualité parce que xew waaw la la la xew ay waay sama réew mi sama fit gi toogul de wuy <laughs> yaa yaa Mandoumbe man Diouf maa ngi kaa nuyu bu baax mu ngi mu ngi fële ca ci dëkk en hexagone France mu ngi may wax ne <clears throat> dafa xaw a tiit parce que dafa gis que tous les ingrédients sont réunis pour que li xew Niger xew Tchad xew ci yenn dëkk yi ñuy ragal ne voilà mu ngi commencé am Sénégal et à un niveau vraiment bu compliqué asma hmm? fii information yi lu mu bare bare bare bare bare bare lu si bëri dafa nëpp est-ce que xam nga loolu tey jii nii bu la neexee nga ne benn information bi moo am mooy affaire Sonko aji Sarr nga ne lu fa xew. ñu ne la waa Jamra ak Abbé Jacques Seck dem nañ fa. Mhm. après ñu ne la ba daaw fa demee laata ñu fay dem Bougane dem na fa samedi. Mhm. après ñu ne la lan lañ fa jëlee Bougane jële na fa euh, Guèye Dany jële na fa ne mhm. information bi génne ci Bougane. mooy il a ñi doon wax ne Ousmane Sonko mooy le leader de l'opposition il a encore affirmé ak hargne et c'est excellent c'est bien ba jeexal sax ne amaana buñ ñu jógee ci Ousmane Sonko ci moom lañ jëm ba koy wax books <laughs> bàyyi boo nga pare ah, nga pare loolu mm. benn la mm-hmm. beneen bi mm-hmm. jama euh, jamra ak Abbé Jacques dem nañ fa waxtaan ak Ousmane Sonko waxtaan bu ñu rafetlu waaye gannaaw ba ñu fa jógee ñu ngi wër aji Sarr ñoom ñu ngi wër aji Sarr pour mën a waxtaan ak moom loolu beneen pàcc la après am na kenn ku ma ne mais lu tax ñuy dem ci def médiation ci loo xam ne c'est une affaire privée c'est une bonne question lu tax asma mm. ñu ñu ñu ñu bëgg ñaar ñu am problème ñu bëgg a def médiation euh, kii dee daf ma violé kii ne ñu ne ñu ne ah médiation dina am kat parce que coow li dafa ëpp loxo mm-hmm. nit mm-hmm. te lu ñëpp war a mun lu la mais léegi la question mooy médiation bi ci ban fànn ci naka da dem ne Ousmane sonk ah bàyyil mu sedd parce que demal nga wuy ji yoon après Ousmane Sonko ne la non mais problème bi mooy yoon bi ni mu waroon jaare jaarul noonu yoon te yoon yéen ñëpp gis ngeen ko nga ne ko waa d'accord mais jàpp ci rek mu sedd ñaari option la mu jàpp ci mu sedd alhamdulilah mm-hmm. ñu ne ok sedd na wante moom tamit est-ce que dina sedd si moom question la beneen bi nga nee nañ dem ci aji Sarr bu ngeen demee ci Adji Sarr bu fekkee Adji Sarr nee na dañ ko violé te moom loolu metti ko ah aji ba ko neexee ulàkk mhm. ba ko neexee ne mukk dañ maa toj ñu dem si yoon te loolu da ci am droit beneen ba mooy est-ce que aussi am na ko am intérêt nit ñi gis aji Sarr loolooy question bu mag bi nag mm. parce que Adji Sarr kenn mënu ko teg bët kenn mënu ta wax ak moom kenn mënu a toog ak moom procureur wala gis na ko ci li ñu wax. mais am na ay photos nataalam yi génnuñu woon ñu ne diw mooy Adji Sarr. génn na de tey it di gisuma. Ah, est-ce que moom la waa mu ngi noonu ce sont des questions qu'on se pose mais également bu fekkoon ne peut-être du moom ah yàlla rek moo xam xëy na ñi nga xamante ne ñoo di avocat yu peut-être euh, de l'autre côté mooy bi Ousmane Sonko ñoom duggoon nañ ci ci juge bi. Mhm. xëy na waroon nañ ñoo infirmer nekk moom ñëwul nit ñi mën a xam. waaw aussi parce que communication ci côté boobu mm-hmm. noonu euh, il faut que ñu leeral ñu ndax jot nañ euh, que gis jot nañ xamante gisuñu ko justement mm-hmm. c'est important teg ci nag Pape Assane ah koo xamante ni dañ la gaañ de da war a génn est-ce que aussi c'est pas pour sa sécurité waaw mais coow li ëpp na loxo ëpp mm-hmm. dayoo nit ñi ba nga xam ni euh, nit ñi mën na moom mun na ragal laaj demande de protection pour ne pas que ñu gaañ ko wala dara mën na am quoi euh, am na am na xam si jamono bi ñu toll c'est vrai que jiiñ ku toll ni Ousmane Sonko. dara il euh, benn affaire am na. Mhm. au-delà du fait qu'il n'est pas n'importe qui et autres. Mhm. man baa ma defee dara. Mhm. ma am bonne conscience que def nga ma dara. damay dem fi yoon doone benn su ma demee si yoon. c'est vrai que on a besoin d'être protégé tout ce qu'on veut am naa ay mbokk sama ay mbokk war nañ ma mën a gis toog ak man ñu ne ah aji mu ngi ci kër gi ñu ne aji saar mu nga këram mu nga dëkk bërëb sàmm ñu nga koy sécuriser sécurité bi nga xam ni du làq parce que làq mi fic mi raisin la day mel ni làq pour protéger mais day mel ni làq emprisonnement aussi c'est un peu gênant ci cas bi ñu toll beneen bi si des xas ma ma bëgg ko dolli. Mm. moo la xam nga lan. Mm-hmm. tantay Adji Sarr ji wax nag ci internet bi ma dégg ko. démb ci guddi. mu wax ak ko la. tantay Aji Sarr. waaw nee na ko lan. monsieur Thiam xaadim Mbacke. Mm. tantay Aji Sarr ji wax ci internet bi ma dégg ko démb. ki doon sëy ak nijaayam ki doon sëy nijaayam. ki doon sëy ak nijaayu Aji Sarr. Mhm. nee ko lan. la mu wax rëy. torop lan la wax. lu mu wax. Mm. daa ne. Mm. daa toog bis. mu la ne fële fa mu newoon ak borom këram fële ca jifeer. jifeer. dégg na la wax bi. Mhm. aw déglu nga. Mhm. déglu nga. nettali. nettali daf may neex. déedéet yaay fetal bi teg ba bal ci fetal. nettali rek nettali rek ma appuyé. xam naa lu mu day ngeen parce que parce que pour man loolu gëw ma ni comme justice dëkk yoon la ñu ne. Mhm. yoon dina bàyyi xel. yoon dina dina dina lijjanti yoon dina dina xool nu nu mbir mën a jaaree yoon. tous les détails comptent doit compter. waaw doit plutôt compter. Mhm. yëpp war a compter. Mhm. tante Adji Sarr ji mu ne <clears throat> am na fi mu ne ñi nga xam ne ñu ngaa raf ñi ko liiragul wala déggaguñ ko. Eh? damaa bàyyi àll ne ko bàyyil def ko woo ne ñu kat ñu ngeeg ak umpaañu ki nga xam ne moo la euh, tantay euh, moo la umpaañu Adji Sarr. Mm-hmm. <clears throat> nijaayu Adji Sarr doon ko denc ndax léegi dafa tas. te tas ba ma nga jóge ci coow loolu. Ah? waaw mm-hmm. coow loolu am diggante moom ak nijaay ji ak Adji mm-hmm. dégg naa wax bi xulil mu ne. mu ne <laughs> dafa toog bis muy togg muy togg nee ceebu keccax la doon togg mm-hmm. ba muy togg ceebu keccax ba ki nga xam ni moo di euh, nijaay ja toog moom na la ca ga nee na téléphone moom ndaw si mm-hmm. nee na téléphone la la mën a fonctionner mm-hmm. dégg naa caam nee na téléphone la mën a fonctionner nee bi téléphone bi sone mu jël wuyu ah, kooku aji ñoom raabi lañu kaa woowee nee nañu aji raabi saar lañ ko raabi lañ koy wooye nee na ba mu jëlee waxtaanam moom ne ko daf bëgg a jot mu paas ko ko nee na muy waxtaan ak nijaay ji waxtaan ak moom ne kat ah man kat am naa fenn béréb bu may liggéeyee euh, salon de massage nangam nangam mhm. loolu un premier la mhm. le second appel maintenant mooy jox ma sama nijaay mu wax ko mu jox ko nee na mu ngi dégg toujours ci haut-parleur mais mu ngi nee nekk de l'autre côté di jeqi wala di di yekk mhm. kala nettali nag loo fekkewul da ngay sonn <laughs> day rendre moom dal nii wante ci ci résumé. <laughs> mu ne bi téléphone bi sonewaatee mu la jox ko nijaay ji nijaay ji mu ngay wax ak moom aji nanga def nangam nangam raa bi du mooy dina wax ak moom pare mu ne ko ah man ko dañ ma sant benn liggéey. tante jay wax de. Hmm? ñi la seetaan ak ak déglu. Hmm. tante yi aji saaray wax du man. Hmm. mu ne dem mu ne dañ ma sant benn liggéey boo xam ne dañ ma ne naa tuumal diw. kooku témoin la. kooku kay romb na témoin kooku ko jëli dañ ko war a la dañu ko war a jëli bu mag waaw dañ ko déglu dañ ko dañ ko war a nee na boo nee jëli moom léeg-léeg ñu di jàll ko na nee na nee na li nga xam ne xew na mu dégg ko nee na bi mu waxee ak loolu nijaay nijaay ji si boppam tante jay nettali de <laughs> nijaay li nekk yow da ngaa am njaboot xaw ma lan ak lan ak lan bu dee daal mën na la si jox loo xam ne di nga mën a dundal sa njaboot ni mu waree nangam nangam et cetera et cetera moom ndaw si nee na ko mën a ko hmm? dégg mhm. loolu amee mu mu joteeg borom këram ne li nga ko wax du dëgg du yoon. Mhm. xelaloo ko lu nangam nangam ñu jote ci une première fois deuxième fois ba coow li bari mu ne ko bu dee loolu man yow yaa ngi nekk ci sa njaayum keccax mën naa la jox trois cent mille nangam nangam bref. bref kooku amul woon trois cent mille xam nga fu mu war a yaakaare trois cent mille ba war ko nangam xëy na. Mhm. bi loolu amee ñu coow ci <clears throat> mu fase ndaw si. ah. am ndaw si nag moo nettali ba mu demee. Mhm. frustration bi mu àndal ak ñu coow li jibee mu ne moom dundam ak ngoram mayu ko mu xam lii noppi noonu la waxee ak Baye mhm. te <clears throat> ni mu waxee ak Baye wax na ko ñeneen ak ñeneen. ci contexte bi ñu toll ak fi coow li toll. Mhm. baax na nag nag ñuy waxante nag ci ay bët on se regarde les yeux dans les yeux pas à partir de hier mais à partir au fond des yeux. Mhm. ñu xool ñu ne Sénégal dafa am fu mu toll damaa seetaan Ahmed Aïdara ci suba mu wax lu am solo Ahmed day kaf mais day wax lu am solo. Mhm. lu dëggu tamit réew Sénégal kenn moomu ko. déedéet ñun moomuñu ko. président bi moomu ko keneen moomu ko xam ko moom Sénégal. Mm. ñun ñëpp. ñoo ko bokk ñoo ko bokk. te tey mu ñu toll foo xam ne un Bougane dafay jóge ci Ousmane Sonko ne day dem Kaffrine wala day dem xaw ma fan ñu téye ko bloqué convoi am. Mhm. pourquoi parce que droit de circulation amul Sénégal. fi ne nii boo waree dem Thiès da nga war a tàggoo. Mhm. ne maa ngi dem Thiès. Euh, euh, ma parce que dafa am benn affaire bu am ñu fàttali ko ci jamono. Mhm. Khalifa Ababacar Sall ba muy def tournée nationale dem ba tollu Tamba. Kounda. ba mu tollee Tamba. la ñu accélérer le processus de de de l'arrêté mu ñibbi si Dakar ñu indil ko convocation nanga nanga coow li ne cour est-ce que aujourd'hui y a quelqu'un qui aurait intérêt à ce que un seul leader wala d'autres leaders de l'opposition def tournée nationale en 2009 2010 2011 le président Macky Sall faisait ses tournées nationales Absolument. Abdoulaye Wade terewu ko ko déedéet donc pourquoi aujourd'hui ku jóg ne da def tournée nationale président Macky Sall mu mel ni dafay joxe ay directives pour que ñu arrêté la. mais est-ce que du feebar bi nga foog. non au-delà de. feebar du mbas mi moo tax muy bañ peut-être euh, dem demalante beeg lante bi. non xa question la. c'est ah, intéressant dañuy laaj ba xam wante ci environnement bi ñu yàgg gis. Mhm. depuis le début à maintenant ku jóg ne tournée nationale ci es sujet à problème Ousmane Sonko lance une campagne de levée de fonds. Mhm. mu dawal affaire bi nekk cent millions et quelques yi am problème. coow li ne cour convocation euh, wootee xaw ma euh, ñu remarqué ni ci guddi gi la ñu génne benn papier ne il faut il faut interdire on ne sait quoi. ensuite après l'argent c'est quoi c'est en vue d'une tournée est-ce que du tournée bi moo waral ñu précipité on ne sait quoi est-ce que complot am na ou pas. il y a des tendances qui montrent cela on n'est ouais. pas sûr mais au vu de certaines sorties mm-hmm. li ndaw si wax mm-hmm. dañu ko war a leeral ma na coow li bari na yàlla si yàlla def ndox mu sedd wante yàlla day def ndox mu sedd si kaw dëgg Sénégal nañuy waxante dëgg fii ñu fi nekk dax am ka nga xam ni Ahmed wax na ko ci suba mu ne gars dañ la naan waaw da nga am njaboot moytul wax ji Ahmed ne bu ñu waxul kuy wax waa léegi Sénégal bu ñëpp noppee bu ku nekk toogee ne damaa am njaboot est-ce que xam nga ni tàkk-tàkk bi nekk fële mm. dina la fekk sa biir kër yow sa njaboot ay du yem ci bopp bërëb ok dox la te boo yaakaaree nii soo waxul wala jëfoo li nga war a jëf rek doo ca bokk ñëpp la laal bàyyiwul kenn. Mm-hmm. ndaxte am na ay jëfin yoo xamante ne si yu ñuy gis gone bu nu meree di ko def ka ca yoonam nekkul da koy laal. Mm. da koo dal. Mm. li nga wax sànq lay appuyer Papa Sane mënuñu dem ci loo xam ne dañu ne c'est entre deux citoyens sénégalais loolu la ñu wax. Mm-hmm. ñu bari loolu la ñuy la ñuy prôné. Mm-hmm. mais bu dee deux citoyens sénégalais alwaa wax dëgg yàlla tamit nag mu war a jaar rek yoon ñu war ko teg rek ci yoon coow leeg pënd bi war na ko mën a mën na war naa mën a ñàkk waru ci mën a am mais lan moo tax coow lu bari